Qui ci une jeunesse républicaine les sentinelles euh, ci un agenda programme qui nga très ne élection première activité sans Samm Moubarak Nous avons euh, fekk nañ association association jeunes cinq associations ñu indi nous partage euh, jataay la woon bo xamné ne yu partage la parce que ñun dañu sétlu né association ay jeune ñoo koy yor te jeunes yi sen jumtuwaay manam sen sen objectif wessuna par exemple ñu ci bëree bare bare fi nga xamné fofu lañ foog ne foofu lañ wara nek parce que jeune yi ñom ño wara jappalé ñi nga xamné ño nek ci koñ yi ñoom ñoo war développer quartier yi ñoom ñoo war a ak maladie yi nek ci quartier yi ñoom ñoo war sensibiliser quartier yi léegi nag ñun suñu suñu ay activité li nga xamné mom lañ ci am comme participation jàppale leen ci matériel bi nga xamné mom lañu dérouler sen activité en même temps waré seen ay préoccupation ndax yu bari bari jëm na fi tay genre problème keuyit ak problème organisation ak problème am yoon bo xamné fa ngay jaar ngir li ngay li nga bëgg nga indi ko sa koñ loolu dal mo ñu njëkkati woon ñu defoon benn euh, association bu nekk ñu jox le pel jox le euh, brouette jox la balai jox la ratou, ak nécessaire yi nga xam mom moy and ak ñom la politique soko day def hiérarchie la da ngay am kilifa kilifa gi am kilifa mais li nga xam ni moy canal bi nga xam ñun japp nañ ne suñ jëlé information wala suñ jëlé ay doléance war na war na faa mën a jaar danañ ko fa jaarale. li fi dégg historiquement sam bu bokkatul mu barak ay problème la amna problème yoon problème ndox problème courant problème yu bari te lépp euh, mënu ñoo xey xey li jëntiko ci benn bis mais xamal nañ leen tamit ne leen président de la république am na ay ay ay ay kilomètres de route ak ay ak électrification ak yu bëree baree bëri ay ay itte yoo xam ne am na ko ci Touba léegi nag des na ci nuñ koy départager ba Sam Boukhatoul Moubarak jot seen jot ci euh, seen wàll. ñu génn tamit ci parrainage bi euh, ku ne xam na ne ñoo ngi doon collecté hmm, depuis euh, deux semaines wala benn semaine ci ginnaaw yaakaar nañ ne loolu tamit liggéey boo xam ne ay activité la. mu fekkoñ suñuy activité ñu ñu ñuy ñuy ñuy ñuy mottali yooyu ndax ñaari activité yu daje la waaye benn lay doon rek fii Touba moom ñun yaakaar naa parti pouvoir suñu 26 millions ñu joxoon yaakaar naa ci ñaari fan lañ ko dajale fi mu toll 100000 la ñuy wax wala 200000 mais loolu dépassé nañ ko bu yàgg. may leeral tuuti tamit parce que ñun dañoo yor génn kuréel gu tudd la jeunesse républicaine les sentinelles am na ñu fi dégg bërki barki démb ñuy coow naan euh, maire Abdoulaye Ka défendruñ ko parce que Abdou Lahad Ka mais dañuy défendre institution bi mais dañuy défendre tamit wax ji xam ne du dëgg ñu ne parti pouvoir bi day jënd ay signature loolu du dëgg Abdou Lahad Ka ay chef de village la dajale chef de village yam dajale nag di leen di leen jox ay signature am na droit

bale ak ay matériels yoo xam ne dañ koy jàppale association yi pour acte bi acte yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def pour wa seen esprit républicain ñu ñu jëfe ko ñu ñu ñu wane leen ne leen esprit républicain boobu ngeen def pour léegi lu waaye di def rek yaakaar naa Sénégal nga koy defal ñu ñu ñëw jàpp ci liñ ci man li fi génn ci ay doléance di bokkatul man du ma denc di ko wax barki démb rek maa ngi koy wax ci journée don de sang bi problème mu don de problème mu bokkatul mbaarak problème un tali la problème deux la problème trois tali la. tali yi nga xam ne ñoo ngi koy indi ci dëkk bi loolu nag ñoo ngi dékk suñ kàddu euh, dëkk bi bu ñëwatee ngir yàlla li lay lii nañ ci fàttali ko bokkatul parce que population bu bëree bëri ñoo fi dëkk te xalaat gis nañ ne buy taw bu tawee rek ba pare nawet bi 1000 francs madiaani gi rek pour nga dem fa da ngay paas 1000 francs oto yi ñu indi fii léegi ay taxi lañ jël ñoom rek daanaka dañoo xultu ba sonn loolu nag ñoo ngi koy ñaxtu bu baax a baax la ma la bokk ci jur gi la de mom dama koy rafetlu rek di ko kontan chaque jour parce que li day wone ne mom bëgg sa réew bëgg sa gox mom mënu ko passer parce que itam amna ci lo xam tay ji nit ki bu la ko diggé war nga ko mëna gëm parce que Bass depuis bañ ko xamé ba légui ci bëgg sam lañ ko xamé bëgg bo talu mbarak lañ ko xamé kuy dem ba radio diko wax dem ba télé di ci wax kon mënu ñu ko xamé len lu dut bëgg sam waaw. waaw di am kontaan bu baax a baax ci bassir Mboup ak délégation bi mu fàntal ak ñi bokkal liggéey bi di nuy également waa station yi fi teew yëpp euh, di wax ne man fa ma daane loon foofu laay commencé waat rek muy pare nañ tey pare nañ suba pour ànd ak ñoom ndax ñi naan ñi fi daan ñëw ak ñi fi ñëw tey bokkun man na dem mën naa ne bu njëkk dañu doon nax waaye tey nag da dañoo wan lu ko jar ndaxte kila la jox euh, dañ ne teraangay teraangay añ ma ngi ca raxasuma ñii a seenum raxasu dafa set kon yaakaar naa mën nañoo bokk ak ñoom man foofu laay commencé par nañ tey pour ànd ñoom tey par nañ ànd ñoom suba euh, li nga xam moom lañ bëgg ñun d'accord nañ ci ak ñun ak ñoom kon ñu li suñ suñ bëgg-bëgg ñoom nañ ko xam te am nañ ci yaakaar ne danañ ko def. bu la neexee tey président bu fekkee mi bu fekkee mën nañoo jot loolu pare na jeex na fi ndaxte bu njëkk ñi fi daan politique ni ma daan wax dañ leen daal ñëw rek pour jaar seen kaw ñi nga xamni ñoo fi nekkal te mën jot ci président ñu and ak ñom di xex di daan boole li am ak lu amut lepp diko ci def ngir président am tay sam soxla nañ tali soxla nañ ndox inondation bi fi kër yo fi dugg da fay ta mais lool lepp li ko xañoon moy li président daan ñak Touba gi mi ngi fep way da fay ñak Touba li tax mu ñak Touba nak lool non ñun ñu ngi koy trouver ñu ngi koy xol te lool bu soobe yalla dina day day deñ te lool mo mën a may sam liñ bëgg ñun ñam ko